may wax tey nii yaa ngi gis yaa ngi fu nekk ñu ngi may di ma dóor may nii eh. man de damay ragal ñu dóor ma sànq tiital nga ma ah, bu baax comme ça ñu waxtaan ak sama nijaay. Abdou dafa dëgër bopp amul may wax ak moom. Hmm. te kër gi sax mu amul luwaa luwaay neex def. Ah, ay xale yu ndaw nekk di ñu woor. ku nekk ak sa jikko. nekk li ñu woo. nga wax ba sonn. ci gën a dëgg bopp nga ne kii la. yow yaay wax. eh ma ne su may wax danga may xool cousine. yow yaay wax. nee naa la kii bi sa morom chaque jour la ko. Hmm? ñaar xam ne waaye ñett xamul. war ngeen maa xamal yéen ñaa ñi li li ngeen di kii war ngeen ma kaa xamal. lii hmm. daf la de. eh bàyyi jàmbur yow kii dafa woor. yow soxna si samay rawaan nga mënul di toog ak ñenn ñi. ay kii bu fi jógee gum tànk wax ma la na woon. jógal nga ñoo toog si digg nit ñi nit ñaa ngi woor nga ñoo toog seen digg di lekk. jógal woo ma. ñu am ci ñii man. eh toogaat ak eh yow demal dajul. sooy wax bëgguma dégg sa baat sooy dem dégg jugal xaw yow cousine. kii wala wala seeg. mel na benn jàllaaba rek la am. dama tax nga mën a tooy nit ki dama koo jéppi depuis le premier jour ba ma ko tegee sama tànk. mais yéen ñaan ñii am na li ngeen a nëbb de lan la parce que dama koy menacé ci ay wax. man daal maa ngi ci biir kër gi dem jëndi kii maa ngi ko suur. ba léegi yow mënoo bàyyi. ñëw toog ci digg nit ñi di lekk. yow wóoroo kay dugal ci biir néeg maa ci waaj ma nga lekk te bàyyi nit ñi. waaye daal nii rek nga xam nga dama ci proposé. waaw baax na waaw sa dëgg bopp ngay bàyyi. changé sa jikko. keroog maa ngi waxtaan nañ. wax ma ko yow xam nga ne Abdou du ma nëbb dara. ma looy xaar ci maax yi man ko moom est sañ na maa laaj bu may xaar ci maax yi ak maax yi duñ benn duñu duñu du tay rek loolu la war a xaar yoo xam nga ne Abdou sa jëkkër la. bu doon sama jëkkër chaque jour jigéen du fi ñëw nga koy te yow sax yow cousine yow yaay jug dem di ko ko woowal. ah nu may def. ah nooy def. nu ma dem lay woowee di ko nu may def. waaye yow xam nga ni Abdou bañ bañ bëgg la bëgg. du dëgg Abdou xam nga ne bëggul ñoo ni kat nag yow xam nga ne man damaa bëgg ci kër gi nga fiy daagu ndax maa yow nii lañ mel yow boo fi daagoo day neex cum ah cum man rek man moom pal li mu métti rek waaye da may liggéey doo ba ma sóor déedéet du ma la liggéey doo dama lay jàppale ma li ma bëgg rek nga changé sa jikko tuuti rek waaw bàyyi reewandu bi bàyyi tooñ rek boo ko defee di am lu bari kon jeex na bu fekkee loolu rek laa mën a def pour am abdu sama xol. waaw parce que Serigne Sow dafa naan. Ah, kontaan naa xale day neex a waxal. xam naa loolu. Mm-hmm. xam naa waaye del woor dégg waaw <laughs> suba dinaa jéem ba midi. naan suba dinaa jéem man waaye jéemu man ci sama cousine bii maa la xale la waaye yàlla baax na yàlla na yàlla mottali lépp. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Eh, maa rek maa ngi sant. yaa ngi jàmm baax. sant baax koor gi mbaa métti wul. koor gi de ñu ngi métti mu ñu tur yàlla yi dundee. waaw moom nag koor moom xam nga rek ñu ciy jaamu yàlla gën a dolli jaamu yàlla. dëgg la. maa bëggoon nga seetal ma diggante Nana ak Abdou. Hmm? Nana moo ak Abdou. waaw. kon am lu xelam mi ngi ci ndaw ji. <laughs> waaw gis na de ah. ay lañ kay. xanaa mu koy jëlee ci biti mu jël ko ci kër gi. du muy nekk doxul de du am lu baax de. def li hmm. ah, nga def de noonu la. parce que sëy balaa nga ciy dugg da nga koy xool. nii moom dañuy dem bu dégg saa rek ñëw ne ni takk jabar wala may jël soxna rek ñëw. waaw loolu la de sëy moom foog nga li saxaar. bu doon daw si jugul nga jig saak dof wala nga jig saak amatoo mm-hmm. nga nekk di ko jiñ ku nekk ni nga def nañ dëccee baax bismillah ndaw si. Mm-hmm. moom daanaka loolu man yàgg naa gis si moom. waaw. fa ànd ak benn faru rab bu soxor. faru rab. léegi mm-hmm. mm-hmm. ndaw si. xanaa moom faru rab du bëgg borom xam-xam. doo gis bu ma gisee di ma def di ma jànni. yaa ngi gis. Ah. Mm, moom jaaxal na ma de. te man instant yii Abdou dama nekk ci ay mbirum. Hmm. te lu ko desee bëreetul. Hmm. te lu may gis nii bu duggee si ndaw si nii. waaw. ay mbirum dina taxawaat de. Ah, sëñ Malaaba yaa ngi jaaxal de ak ni mu kontaan te mu ci am. Ah. mu gis nii demul kër. fa gis ñu dégg seen keneen kii far la. Ah, mhm. eh, liggéey bi mu parce que lii ay saraxam day metti ah lii de na laaj ay sarax yu metti sax. ah, ah waaw. boo mooy dul sax tout dret dina ci am. jaral na ma ko. boo mooy dara de si tuuru ñu defal ko ay sarax yoom doole. incha allah. Mhm. naa la bàyyi rek nga gën ko xoolaat bu moo gën. ah xam nga xale yi ñoom seen tool yi moo tax. fu mu romb xam rek mën nañ dajeeg jinne te duñ xam moom dugg leen. mu xale bi moom macha allah. Ah, sëñ Ba xanaa koy xool xool sa xel a jënd. ah non xale bi kat ku bët di xool. bu la nga xam ne kii ma yaa ma gën a xam. dëgg la kay. waaw ah. daal mayoo mu xoolaat ko bu baax. incha allah gën a ko xoolaat bu baax. waaw waaw waaw waaw waaw. boobaa lu ci am rek def def incha allah. waaw incha ma àgg ci wàllu. waaw incha yow xale bu mool bu neex nii mu doxee ñëpp xool ko ma rey da bëgg a takk di ma yàqal yow bis kii du ma jox ay sangat du mën a tourner bopp bi ba ma mën si moom noonu laa jéem a def sax solo ma xool ma ko sàllee rek bëgg yomb waaye ah seet pour dara sax xam nga kon moo bàyyi ko jëm nelaw tuuti waay